xibaar bu tiis te métti lool moom la sénégalais yi xëy yeewoo mu di génnuk àdduna ak Mbaye Guèye champion de lutte ancien tigre de Fass moo génn àdduna ginnaaw feebar bi nga xam ni moo ko tëraloon ay at te ñenn ñi amatuñu woon ay nouvelles ci moom mu di accident cardiovasculaire moom mbay Guèye moomu ku mu maseel jamono bàyyi nga ko xel ndax ay jalooreem yi mu def ci làmb ji waaye itam doon bégal sénégalais yi ci atum 1968 lañu ko dippee Tigre de Fass ginnaaw combat bi mu amoon ak Sa Ndiambour mu di combat bu méttee métti ndax demoon nañ ba Sa Ndiambour dominé Mbaye Guèye dóor ko deret ji sangu ko waaye itam ay fansam amatuñu woon yaakaar ne moom Mbaye Guèye mën naa daan Sa Ndiambour Mbaye Guèye sigil leen mujjee daan Sa Ndiambour ci daan bu méttee métti collaborateur bi di quotidien Le Soleil moo ko bindee ci fukki fan ak ñeent ci weeru juillet ci 1968 ñu dippee ko Tigre de Fass ndax njàmbaarteem moom Mbaye Guèye moomu mi ngi doon mag ci Moustapha Guèye mi nga xam ne moo jël ndombol tànk li euh, ci Mbaye Guèye moom itam ñu dippee ko euh, Tigre de Fass ak demam métti na sénégalais yi ba tax na ñëpp a ngi koy jooy waaye itam di fàttali ay jalooreem ma fàttali leen moom mbay Guèye mi ngi faatoo ci fas Mbao ginnaaw feebar bi ko tëraloon di accident vasculaire ab néewam yóbbu nañ ko ci tuuba ci suba gi ngir denc ko jébbal ko boroomam ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xare ci àjjanay si tey jébbal suñu ko jàll képp koo xam ne yaa ngi ci écurie Fass waaye itam sénégalais yi nga xam ne Mbaye Gueye yàgg na leen bégal